ko jublu ndax Serigne Moussa Cissé dimbali nu jébbalu ci Serigne Moussa Cissé du maasam leneen dëkkam moom fi suuf si léegan feneen rikkaal yi ba maase ci baatub ko ngir kerkeraat yi mu jëfal aw nitam jëfal ko ci benn xëy moo gën juróom fukki at yoo julee kaaba ga fa góor yàlla yey wét li seen wax ci jawartu gëme lii ma wax Serigne Moussa Cissé rabal na yoneen ba wëtteenu mu jot ngir lislaam mu bàgg def léppi malaan wëdd ci buur yàlla ya daan fuubu ngir rafle ñëpp geddaat nanu ba tal seeni kër makk la nu xami këru ñaanu ga nabi làqu leen jaax la ju rafle ga tuubaa gi lay toolam suufas texeem lonjoo tay ba daan gi fii lay saxeem wowu xol day xii borom ca kañaan ku bañ Serigne Moussa Cissé ndoxam kaw sara doo ca balaa taalu bee ma xam dëgg manam mu am saa ci ba jot yi mayam yaa rabbi salli wa sallim sarmada ala muhammadin ma bañ bida yaqool abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumatu wa muhammado ku sopp Serigne Moussa si jógo taxaw ñëw màggal ko yaqool abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumatu wa muhammadu باسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قادر الأمان الحمد لله على الكتاب مع سليم بالغتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي قدمة وسورا ثم صلاة الله والسلام على الذي من إلى وقلام سيدنا سميعنا عن خدمي إن الذي تسكو لدي خدمي محمد وسيلتي وجنتي أني أهادي ولا سوى جنتي وآلي وسبيل أبراري في الآل والمال من تكراري أسى وقد خدمة دقر حين نبني كما تبر نويت من سلام خدمة بسر مصطفى بي قفيت ماسور خدرمتم خدرمتم خدرمتم خدرمتم خدرمتم من ربي البراءه yaa xidma li man bi jaayi kafaani sadma ñaan yi ñaan ci dara jaay jaay batul maraaxi sëñ Moussa yal na fi yàgg ci sëñ Moussa yal na fi yàgg ci sëñ Moussa yal na fi yàgg ci